waaw waxal numéro Aliou Cissé laa bëgg war naa koy classement na nationale ba sonn waaw dama bëgg yéen xale yi ngeen jël équipe bi en main jël leen ko en main équipe bi seen équipe la boo leen ko jëlee da ngeen ko war a jël boo ko jëlul da ngeen koo war a jël mag ñi baleen ngeen fubal mag ñi nañ leen ba ngeen bal nag bu mag du yàqu mbokk waaye bu amatul ba ñu ngi ko yee yàqu koo yem Aliou Cissé na génne ñooñu te jël leen ah